diwan nuk tuba ñom ño da di songu uh, bërepp bi nga xamne fa la sa aman amal la siège am uh, toj nañu lamp ya da uh, naka ñi nga xamantene ñom lañu fi fekk bëggun nañ leena fitnal liko indi ci xibaar yi nga xamne mom lañu am moy ne ñaari ndaw ay soxna yo xamantene ñi di bok ci sa aman ñom ñoo leen da di japp jël leen ci bir mairie bu tuba ba nga xamne fa lañu nekkon don am luñ fu don wut Euh, gannaaw ba ñu amoon ab ndaje ñooñu nag daal di dugg jël leen euh, par force ci li ñu jottali ci ay euh, xibaar ci témoignage yi ne ci lañ leen jël yóbbu leen indi leen fii ci fa nga xam ne moom mooy barabu safinatul aman bi léegi loolee nag daanaka moom mooy indi xët-xët gi ba kenn ci adjoint maire bi di sëñ si di mu moom sëñ Abdou moom nag ci xëccoo bi ci la daan ko bëmëx ci li ñu jot ci xibaar ba tey Euh, mu daal di daanu am ab dam damm loolee nag tax askan wi daal di mer. Euh, ñëw fii wàcc si fi police euh, teew na euh, gannaaw ay lacrymogènes yoo xam ne jot nañu ko fee sànni ak li nga xam ne moom mooy xeer yi jollee fu nekk jamono ji nag daal mu ngi am ndànk-ndànk waaye it ba tey xale yi ku ci nekk fa mu làqatu la taxaw rek gànnaaw ak xeeram ñu ngi jéem a saytu itam mbir mi fan lay daal di mujjee jamono ji nga xamante ne nag kilifa yi ñoo ngi ñëw di jéem a saafara mbir mi nga xamante ne nag moom moo xew diwaanu tubaa ci mbirum. safinatu safinatul aman hmm. ndax am na ci ñu bari ñoo xamante ni jàpp nañu ne am na ci loo xam ne agent yi ñu ngi koy doxalee te loolee neexawul askan wi ba tax na moom moo jur li nga xam ne ni moom moo am tey Makumba Bey kan lañ ba wax ba mu damm sëñ Sidi mu sët ci sëñ Abdoulaye sëñ sëñ Abdoulaye Mbacke léegi que nekk adjoint maire ci commune bu Touba moom moo daal di moom la ñu ba wax mu daal di am ab damm-damm loolee nag moom moo indi coow li daanaka Euh, mais ñaari soxna yi lan lañ leen euh, jiiñ ba jàpp waaw dañu jàpp ne euh, colin gi ñu sol dafa wuuteeg li nga xam ne moom la ñu wax ne war ma ci diwaanu Touba. Hmm. ci li nga xamante ne nag témoignage yi ñu jotee rek yi ci ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi ci conseil municipal bi nee nañ ne que li ñu soloon lu jot la waaye nag ñoom ak forcing bi ñu def ñëw jëlee kenn ki ci biir mairie bi daanaka moom moo dem ba indi coow ci diggante yenn ci agent wu mairie bi ak ñoom ñu ñëw fekk si leen fii bëgg a dugg ngir saytu mbir mi naka la tëddee uh, ba cooli juddu uh, ki nga xam ne moom mooy uh, sëñ sidi mi nga xamante ne adjoint maire la daal di daanu gannaaw ba ñu ko bëmaxee ci li ñu wax ba tey hmm. ngir mu loolee daanaka moo indi daanoom googu ba mu am damm-damm coowli nag moom mo ko daal di waral Makumba Gueye. d' accord